justement que partout dans le monde entier, si on dit Sénégal, Sénégal, Sénégal, Sénégal, qui est par exemple le, le, le berceau du savoir, de la grande connaissance, hein, de toute l'Afrique, pour ne pas dire du monde entier, vous croyez que c'est au hasard. Je vous jure, c'est parce que C'est parce que, c'est parce que, je vous dis parce que, ce symptôme, hein, c'est sa vapeur qui vous a couvert, cause pourquoi vous êtes savant. bu fekkee dañuy wax ne Sénégal mooy barab bi nga xamante ni euh, mooy dërub xam-xam bi gën a màgg ci Afrique wala sax ci àddina bi nee na loolu ak neen nee na moom leer na ko ni. barkeb Serigne Touba mi nga xamante ni moo nekk fii nee na loolu moo law yiir senegal ba mu doon dàq bi nga xamante ni kuy wër xam-xam ci Afrique wala ci àddina bi danga naan fii la fekk baax nee loolu wóor na ko ni barkeb Serigne bi moo indi loolu. si ce ce ce saint homme pas couché ici le Sénégal allait être le dernier parmi les derniers en connaissance et en savoir. nee na wóor na ko ne de bu fekkoon ne Serigne mag bi newu fi. nee na Sénégal mooy gën a des ginnaaw ci wàllu xam-xam ak ci fànn yëpp nee na loolu amul lu mu ci naatable. parce que il s'est appuyé sur quelque chose ce qu'on le Saint Coran. Le Saint Coran. Vous savez que dans le Saint Coran Dieu a dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو ولو كره المشركون nee na ndax sëriñ bi mi ngi sukkandiku mbiram yépp teg ko ci alxuraan ji nga xamante ni moo indi diine yi dëgg ji suñu boroom wax ne moo nar a màbbu diine yépp mu neex yéeféer ak bokkaalekat yi ak mu naqari leen nee na l'islam ñëw màbb leen taxawal diine yi dëgg J'ai été en Arabie Saoudite, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas vu cette organisation en islam. dans le, je n'ai jamais vu comme ça monde entier si ce n'est pas à Touba ici. Je n'ai jamais vu. nee na moom dem na Arabie Saoudite waaye nee na wër na ba dajal gisul ci bëtam ci wàllu lislaam mbooloo mu organisé mu nas mu nosoo ne mbooloo mi mu gis ci Touba ni ñu tënkoo ci li nga xamante ni mooy diine l'islam. chacun prendre l'autre plus grand que lui je n'ai jamais vu si ce n'est pas ici moi je n'ai jamais vu ça. nee na kenn ku ci nekk. boo gisee sa moroom jàpp ne moo la gën moo la féete kaw nee na loolu dem na fépp waaye Touba rek la ko gis. Je n'ai jamais vu de gens des musulmans qui se regroupent faire une réunion ici la fin de la réunion qu'un conflit ne se déclenche pas je n'ai jamais vu si ce n'est pas ici. nee na mosul gis mbooloo mu toll nii moo xam ne dañuy daje fi barab di daje di réunion ay fan ba réunion bi jeex poñente wuñu xeexuñu xuloo ba kenn àtte leen nee na mosu koo gis fu dul fii ci Touba. Je n'ai jamais vu des musulmans qui ne font pas de discussion, qui ne se tiraillent pas, si ce n'est pas ici. Moi, je n'ai jamais vu la là. Ça m'a étonné quoi. bokk na ci li ko gën a jaaxal gisul fenn ay jullit yoo xam ne waxtu wu ne boo leen gisee mbégte ak jàmm lañuy ñuy séq du xeex du ñu xuloo kenn du leen àtte nee na loolu moom bokk na ci li ko gën a jaaxal. Je n'ai Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas devant. Chacun connaît son travail et son travail est respecté par l'autre. Si ce n'est pas là, je n'ai jamais vu. nee na itam gisul fenn foo xam ne kenn ku ne boo xëyee xam nga lañ la digal nga war caa ne lañ la joxoñ nga war caa dem te doo ko laaj kenn ku ci ne xëy nekk ci li nga war a nekk te kenn du taxawaalu kenn du ne ci lu lu sa yoon newul nee na loolu fii la ko gis ci Touba. Or le saint prophète l'a dit, vous n'allez jamais tant que vous ne serez pas croyant. Et vous ne pouvez jamais être croyant tant que vous vous, vous, vous Les uns les, les autres. C'est pour dire que paradis, sa clé là, c'est votre caractère. ndax nee na yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ci addis ne kenn ci yéen du dem àjjana ndare du bu ngeen doonee ay way gëm waaye itam du doon mukk ay nit ñu seen ngëm wér ndaare du kenn ku ci nekk dafa bëgg boppam dafa bëgg moroomam ba mu gënal ko boppam kon nee na nag yoon wi yonente bi sallallahu alayhi wa wax ni mooy yoonu àjjana gis na ni caabi ji mooy melokaan wii mu gis ñu ko ci Touba. même caractère pour na gis na ni l'islam dëgg bu koy wax nee na mooy melokaan wi mu gis ñu mel ko ci Touba ndax nee na l'islam bu doon ab néeg la nee li jëmmi l'islam di firi muy jàmm. bunt boo duggee ci néeg ba rek loolee di jàmm jooju nee na moom ngay am nee na loolu nag moom la gis te nee na moom ci boppam bu sañoon noonu lay mel li mu gis fii bu sañoon mooy nekk ci moom nee na looloo waral mu jël ay doomam génne leen ci école français yi ñu doon jàng indi leen fii Touba ngir li mu gis fii ci melokaanu murit ñu def ko ci ñoom. Donc nous voyons que le caractère que vous avez présentement je demande au Seigneur du Cheikh Ahmadou qu'il fasse que vous puissiez garder ce caractère, garder cet enseignement. Ne pas, par exemple, déboîter de ce chemin, le chemin droit que Dieu a tracé pour vous et pour toute l'humanité entière. Je prie Dieu pour que vous ne puissiez pas déboîter, vous avec toute votre descendance. ci suñu borom mi nga xamante ne mooy borom kattan mu sàmm ñu ba yoon wi nga xamante ne gis na ne ñu tegu ci ñu bañ cee jeng wala ñu wàcc ko benn yoon muy yoonu siraatal mustaqim bi nga xam ne moom la suñu boroom digle santaane ko te ñu nekk ci nee mi ngi ñaan suñu boroom sàmm ñu ci sàmm suñu njaboot ba ñu nekk ci sax ci bañ ko wàcc benn yoon. Et ce qu'on la bagarre, la bagarre est réservée pour les gens du feu. Ça, c'est le Coran qui le dit. Ceux qui la bagarre entre eux. Leur place, c'est le feu. C'est Dieu qui l'a dit. Mais, là où il n'y a pas de bagarre, là où il n'y a pas de bagarre, assalam, assalam, c'est là-bas effectivement le, le paradis. C'est ça qui fait que vous, vos enfants, qui sont là en train de mémoriser le Coran jour et nuit sans problème, c'est parce qu'il n'y a pas de bagarre entre vous. c'est parce qu'il n'y a pas de bagarre entre vous et les femmes. Parce que le saint prophète a dit, il ne faut jamais aller en rapport avec ta femme au moment qu'elle est mécontente. Si vous partez en rapport sexuel au moment que vos femmes sont mécontentes, vos enfants vont faire 20 ans sans pouvoir arriver à Sabbihisma Rabbikal A'la. C'est parce qu'il y a la paix entre vous, entre les femmes, entre... Ça veut dire, la paix, C'est ça qui fait que vous êtes en train de mettre au monde des enfants de paix. Que Dieu continue avec vous comme ça dans euh, euh chose jusqu'au la résurrection. nee li mu gis fii yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ni fépp foo gis xëccoo ne fa ak ŋaayoo ak xeex nee na loolu melokaanu waa sawara la waaye nee foo gis jàmm akub ànd ak bennoo nekk fa neena na melokaanu àjjana la te nee li mu gis fii ci wàllu jàmm nee na tax na ne gone yi nga xam ne ñoo fi ne mokkal gi ñuy mokkal alxuraan nee na mooy jàmm ji nga xamante ni moo fi ne jàmm ji nga xam ne am nañ ko ci suñu biir kenn ku ci nekk am ko ci sa njaboot am ko say soxna nee na loolu mooy tax ñu mën a am ay doom yoo xamante ni ci biir jàmm jooju ci la ñuy ne ba mokkal alxuraan waaye nee na koo xam ne day xiiroo ak ak ŋaayoo ak ñi nga xamante ni ñooy ay waa këram nee bu ci amee njaboot mën naa dem baam ñaar fukki at na sa bisma rabbika laa sax du fa mën a yegg ndax loolee nga xamante ni mooy naqar wi nga xam ni mooy ni ci seen diggante. Quand le cheikh Atoum a pris ce matin à 5 heures du matin on a fait le tour on a vu le groupe de femmes qui étaient là en train de préparer pour les enfants daara qui mémorisent le Saint-Coran je suis reparti dans ma chambre pleurer comme en enfant je n'ai jamais vu ça dans ma vie. nee tey suba bi nga xamante ne sëriñ Aatu ànd na moom ci fajar gi bi ñu jullee ba noppi ñu dem ci waañ wi nee na mu gis soxna yi di taal ay mbana yoo xam ne leeral nañ ko ne ci dongo daara yi la war a jëm nee na bi mu delloo ci néegam nee na dafa jooy ndax loolu ni mu soree ci moom. des femmes qui se sont consacrées pour nourrir pour préparer pour euh, des enfants qui mémorisent le Saint-Coran. elles n'ont pas de récompense si ce n'est na soxna yoo. pas de récompense si ce jour de la résurrection. nee na soxna yoo xam ne dañoo féetewoo di togg di yàq jëmale ko ci ay dongo yoo xam ne seen liggéey weesuwul di mokkal alxuraan nee na pay gi nga xam ne la war a séenu du benn pay wu dul àjjana nee na àjjana rek moo mën a doon seen pay.